bi gën mag ñu war ko départ mu ngi dox ci diggante Lac de ak ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène suñu papa Gaston Mbengue moo ko tëgg le 4 avril la arène nationale combat boobu noo ko gisee. waaw Lac de ak Eumeu Sène ay mbër yu mag leen ay mbër tamit yu miin bis leen ba pare ñuy bëri si bis bu mag muy 4 avril du nekk bis bu yomb si Lac de Guiers du nekk bis bu yomb si Eumeu Sène mais xam la ne ku si ëpp lu muy génnee si lu weex moom làmb ci ëpp muy génnee ci lu weex moom moom làmb ji. ba solinam ku si ëpp lu ngay génnee si lu weex ak sa solin jaamu làmb ji saison 2021 banaa la drapeau bi banaa la saison 2021 laa wax si mbër yëpp drapeau bi banaa la te seetlu li ma lay wax. ku si ëpp li ngay demee lu weex yaay moom laa mujj de. ñoom ñaar kan moo gën a jekk actuellement ni ci làmb waaw mooy li ma la waxoon sànq mu ne la Sénégal wax dafa metti ngay dem ba ñu bari ba dootu ñemee wax si yéen bis yi. da loolu léegi. waaw ah, man taalibe Cheikh la. taalibe Cheikh du du ragal du jaax. Cheikh rek si dolli parcelle laa juddoo. falaa laa màggee fa laa yoroo. ma yombul. xoxote ma tamit yombul. ndax dañu comme wéeruwaay. neex bu max dama am wéeruwaay ba yoon bi xam fi ma jëm amul métit ku jekk ñoom ñaar instant bi de le combat gëm naa bu nekkoon suba suba suba suba Eumeu Sène daan ko lu jafe nag laa def lu <laughs> waaw lu nag laa lay wax te ñi du neex a dégg hmm. mais bu nekkoon suba mercredi bi Lac de Guiers pare nga hmm. Eumeu pare nga nga dégg ñu ne Eumeu Sène wàccal ci kaw laa dëgg yàlla du neex dégg nag li mu lay wax nii. léegi li nga wax ni day dem ba ci làmb ja wala avant làmb ja mun leneen mun naa xew. waaw làmb ja leneen mun naa xew moom moo bu ñu toll nii nii quatre-vingt-dix pour cent Eumeu Sène moo jekku moment bi ñu toll nii laa wax quatre-vingt-dix pour cent yëpp moo jekku Eumeu euh, ci leeral am na euh, jàkkaarloo bu amoon ci ñoom ñooñu euh, dinaa ñëw ci Diène Kairé ak Modou Anta noo ko gisee mais ci jàkkaarloo boobu woo nga ma téléphone ne ma am na ci mbër moo xamante ne ci ñoom ñaar diggante Lac de ak Eumeu Sène bu génnee lii sarax kenn mënul téye mu gañ a nàmb ji loolu yaa ngi koy gëmbatay ba tey. waaw maa ngi koy gëm ba tey <laughs> maa ngi koy gëm ba tey de waaw lamb yooyu dèjà foofu rek boo xoolee seen jàkkaroo boobu rek wane na na boppam seen jàkkaaroo boobu rek mooy ne ki am ndam ah, leer na foofu ku am baatin dëgg boo xoolee rek di nga xam ndam am na foofu ba pare gis nag yàlla suñu borom ma ko yor ndam moo xam ne képp daal kuy utiliser lu weex te dafa am lu ma jaaxal parce que seetaan naa dem seen benn interview ñoom ñaar Lac de lu weex la sol. waaw. Hmm. Ah. Eumeu Sène ak Lac de bu leen kii invité Malick Thiandoum hmm. lu weex la Lac de sol. am na lu nekkoon si début ne la weex koo ci jiital yaay moom làmb ji saison 2021 saison balan la xibi say bët di xool ñu si am ndam ak weex dina bëri torop. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum adduna Pape Fall Waly balaa bu Seck maa leen di wax ne leen ah rek mën fex leeral koo xam si bëgg a sa yaram.